bokk yi ñu leen di xamal ni kuréel gi di takku defar daarul moxti ni ko sëriñ mu daw Balla Njaay jolof waxee bokk ci kenn ci ñi nga xamante ni ay waajuram dañoo àndoon ak borom daarul moxti sëriñ njagam mii naka noonu nga xam ne mboolem ñi fi teew ñëpp koo ci gis rek boo delluwaatee cosaan dalay wóor na li ko ci boole mooy njaam ki ba ci sax ñi nga xamante ni ñoom dañ leen di xool tey jii di leen xoolee borom daarul moxti ñu mën cee lim ku mel ni soxna maam ami lim ku mel ni Euh, soxna njaxat Mbàkke mi nga xamante ni seen yitte jenn yitte rek la muy lëggeel Serigne Touba jëf jooju rek moo takku kenn ku ci nekk da ngay jaay sa njureel jëndee ko ak taalibe kon jotaay bi ñi fi dajee ñëpp jenn yitte moo leen fi dajale cosaan la ba fi mu ne muy lëggeel borom daarul moxti takku defar daarul moxti nag dafa doon loo xam ne day bëgg-bëgg Serigne Touba. kon dëkkandoo yi fi ne gannaaw bañ leen sante bu baax ci turu soxna si gërëm leen dañ leen di yeesal di leen gën a leeral kuréel gi di woo képp koo xam ne yaakaar nga borom daarul moxti nga jaayante ci ak moom ndax daarul moxti ba borom daarul moxti jóge Mbàkke Kajoor sëriñ bi digal ko muy jàng alxuraan ba fa kaamil ba daanoo mu sanc ko foofe mooy daarul moxti tey jii di dëkk ba la mu ko la mu ko fa waxoon dëloon ko fa loole dara dañu ci te ku ci tabbal saw ñaq nga dugal ci sa loxo ba bala borom daarul moxti bëgg daarul moxti loolee di dox di am ndax dafa mel ni bëri ko ci mbartal nga def loole am nga ñàkk def loolee am ndax sëriñ Touba dafa waxoon cerno ne ko cerno mu ne ko mbàkke mu ne ko lu ma am nga am ko pujub nekk sax bu takkee Touba dana takk daarul moxti kon ku yebbu bokk ca kon ñi ngi tàllal loxo di soññiwaat ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal borom daarul moxti bokk ak ñoom gox bi ñu xam kuréel gii di takku defar daarul moxti kuréel la gox boo demee daarul moxti fexe nañ ba fépp foo xam ne ab sancaan ma nga fa wala néew gi doole nekk fa wala néew gi doole nekk fa wala jafe-jafe mbokkum taalibe am ko fa ñu fexe ba def ca seen kem kattan seen yitte bokk na ci naka la ñuy def ba ña dëkkee daarul moxti te ñun ñii ñu waroon leen a yor ndax ñun ñoo waroon a dëkk daarul moxti ndax ndigalul sëriñ Tuubaa la borom daarul moxti sanc ko ngir liggéey ak jaamu yàlla loolee nga xam ne ña fa nekk nag ñoo leen waroon di neexal di leen fay guddeeg bëccëg ndax ñun lañ fa nekkal kon ñooñee war nañoo taxaw ci seenu nekkin ba loolee na ko sëriñ daarul moxti bëggee sëriñ Basiru mi nga xamante nii ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér gannaaw ba ñu ko ziyaare bu baax moom mboolem njabootu borom daarul moxti gi la fa bëgg te muy yitteem loolee am na mu ko bëggee loolee tax nag takku defar daarul moxti def seen yitte ci yitte yi askan wa dëkkee daarul moxti bu dee ndox ñu fexe ba fépp foo xamante ni bokkum taalibe ma nga fa ñu fexe ba yóbbu ko fa ba nga xamante ni ña fa nekk ti ittiwoo am ndox di ay sancaan danañ am ndox mu ñu naan ci lu dul coonam ña fa nekk ittiwoo am paj danañ am paj mu sell mu mu mu mu méngoo ak darul moxti ci lu dul coono looloo tax kuréel gi xaarut état xaarut len taalibe borom daarul moxti ñoo dajale seen i dërëm seeni i ñat dërëm ak ñi bëgg sëriñ Tuubaa te di ko lëggéeyal ba tabax fa tey ji maternité soxna Faati Isa Diop ngir jigéen gu dëkk daarul moxti mën a am barab boo xamante ni boo ittoo am paj da nga fa dem ci lu dul nga di ko jéggaani ndax loolu moom daarul da ko weesu te ñun ñoo ko mën a tabax ñun waa daarul moxti kenn duñu fa fekk di fa defal dara tey buñ ko defut itam la sëriñ Tuubaa waxoon dana am ndax tuubaay kon loole mooy yittey takku defar daarul moxti loolu itam lii nga xamante ni moo dajee muy njabootu borom daaru moxti gi dajee nit na naka naka noonu naka noonu njabootu borom daaru moxti gi dajee nii loolu itam tawfeex la juñ ci am ndax lii amul woon te takku defar daarul moxti moo ko indi ndax buntu kër yëpp dajee nañ ci jotaay bi maternité boobu nag nga xam ne war nañ koo indi inaugurer ji war koo daloo ji moo sabab njaboot mii moo moo moo sabab ndaje mii loolu war a nekk le 14 bi ñu jëm muy le 14 août dimanche bi nga xam ne moom la ñu jëm te bu ñu jógee ca loolu danañ dimanche suba bi bu dellusee bu gannaaw suba bu dellusee bu ñu jógee ca loolu danañ songaat yeneen i liggéey ak yeneen i liggéey te bàyyi wunu nag benn yoon liggéey bee nga xam ne moom la Serigne Bassirou nekk muy liggéey jumaa ji te mu nekk ab lim bu tokk ci ay milliards te mën naa ne ay sama baaraam yi bu ma doon wàññi danaa ci wàññi ay milliardaire te te te du ma jeexal yoo xam ne daarul mox ci rek lanu yaakaar kon dërëm beeg ñaar dërëm bi nga xamante ne am nga ko fexeel ba borom milliard boobee la Serigne Touba waxoon rek ca gànnaar ba dërëm ba ak junni ba dajee mu ne junni bi di ak dërëm bi ñooyam atte maanaam ndax borom dërëm bii de yéene woon na junni bi kon tuyaaba ji jenn la bul ne milliard laa am wala dërëm laa am ba du ma bokk takku defar daarul moxti bul ne téeméer wala ñaar dërëm la sas fu yam déedéet loo am na nga ko ci def te xam ne cerno ngay liggéeyal te loo jox cerno day na lu wóor ne tegu na ci loxob loxob Sëriñ Tuubaa ndax ne woon na ëllëg day la may séddale jox naa ko cerno ku sedd ëllëg moo la sédd ñawoon na ku gisut sab cër na nga ko laaj cerno kon borom daarul moxti ndokk ba ñu nekkee ci ab buntam kon ñuy santaat bu baax a baax Sëriñ Tuubaa di yeesal bokki taalibe yi di leen xamal ne nañu am fulla ak fayda akuk takku jaayante ak Serigne Touba ci Daarul Muxti rawatina liggéey bi ndax kat jafe-jafe ya nga xam ne bokki taalibe yi amoon nañ ko fa ci bu ñu woo paj te wallaay ñun ñii ñoo yaakaar borom Daarul Muxti ñun ñi la borom Daarul Muxti am ñun it borom daaru lañu am fexe nañ ba kuréel bi kon tax fexe nañ ba def fa am maternité boo xam ne ku itteewoo ti am paj da nga fa dem paju loolu nag dafa bokk ci li nga xamante ni day topp nit ki ba abadan ba faw bokk na ci lii des gannaaw bu nit ki Eh, bu nit ki wàccee ab liggéey bu faatoo jëf yi des ñu di ko ci fay aw yiw liggéey bi bokk na ca kon ku ca nekk ku ca bokk ku nekk te wóor na wóor ne danañ xotti suuf dugal la ci jébbal la Serigne Touba bu bokk ci yiw wa nga xamante ni Serigne Touba dana la ko terale ba faw loolee liggéey bi ci la bokk kon liggéey yi nag jeexut mi ngi ci sunu kanam wax naa ci lu mel ni ndox wax naa ci bu tabak si jotee ak korité ak yu mel yu ne mel ñu taxawu bokki taalibe yi ba ñu ittiwoo ci ci ci ci ittiwoo koo am ba seeni jafe-jafe wan leen gannaaw loolee kuréel gi da ciy da taxaw temm ah day dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy yemandi foofu rek ndaxte ñi ci war a sànni ay kaddu bari na lool waaye li ñu mën a xamal bokk yi daal mooy takku defar daaru moxtee ngi noonu ab liggéey la boo xamante ni dafa war dafa jot rek mu daal di dikk bëgg-bëgg borom daarul moxti la itam boo xam ne dafa feeñee ci ñun ñii waaye kenn yóbbulu ci kenn dara tey tey tey bu neexee nit mën na ci daal bokk fii fii nii ñu toog mu daal di bokk dugg te kenn du ko ci ëppale kon ñu ñu farlu ci bu baax a baax fexe ba kenn ku ci nekk foo mën a nekk sab téeméer na nga fexe ba nay dugg ci ci liggéey bi bu bu fekkente ni ndaxte fi mu ne nii dama koy wax damay wax ne soxna Ami Mbàkke mi nga xam ne fu ñu gertoo gis ko ci sunu gannaaw fépp foo xamante ni taxaw nañu fa rek mu taxaw ci mu taxaw ci sunu wet sëriñ Ibrahima mii sëriñ Xaadim mu sëriñ mu sëriñ euh, Mbàkke Dabasaar ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñu waruñ ñoo ëpp fulla waruñ ñoo ëpp ak bëgg ndaxte ñoom kat damay wax ne ñun njaam gee ñu ci boole xay na waaye ñoom li ñu am ci sëriñ Tuubaa am nañ ko woon waaye dañ koy jaay jëndee kook taalibe kon nañ fexe ba suñu téeméer fu ñu mën a nekk nañ koy jaayanteeg borom daaru moxti ci liggéey bi màggalu daaru moxti gi taalibe yi bokk na ci lu ñu wax daaru moxti itti woon aw yoon bu ñu jombalee suñu bopp ne war nañoo mën a xotti ay yoon yu jaar yoon te jaadu dugal ko biir daaru moxti defar péncum borom daaru moxti defar dëkkam ba ba lamp ya ne fayaax ndox ma di ndox ndox ma di ngan ndax lool yi borom daaru moxti waxoon na ko waxoon na ko kenn ci ci njabootu Cheikh du fay ci waa këram xam ba nga xamante ni mm, daarul moxti booba ndox amagut mu xamal ko ne ko lii ma gis dey maanaam ndox mi de day walangaan na ba dugg ci sa kër keroog ba nga xamante ni ubbi na ab robinaam ndox ma ndox ma ndox ma daal di sotti dafa daal di yuuxu ne lii de la ma Cerno Ibra Faati waxoon kon man noppi naa damay daal di dem kon nañ xam ne lépp noppi na la fa war a am nañ fexe ba bokk ci rek kay la ñuy wax te bokk ci nag itte rek la ak pas-pas tax ndax te kat ku góorgóorlu wala nga dox yi jéego yàlla mooy mottil la ca des ku am pas-pas mbaa nga dox yàlla gàttandu la ndax kat bu fekkee da ngay raam moom day daw wut si la bu fekkee da ngay daw mu raw abiyon wut si la te loolu nag mooy liggéeyub Serigne Touba amut kenn ku ci des gannaaw liggéey bi liggéeyub Daarul Moxti la liggéeyub Serigne Touba la te ku ne Serigne Touba ne Cerno te kuy liggéeyal Serigne Touba ku ci nekk te jaar ko ci buntub Cerno na la wér na sab liggéey wér na te nangu na booy ngistal sax yàlla fay la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu la fa war a am lépp dana fa am léegi nag takku defar Daaru Moxti ci noonu la eh, taxawee ci ndigalul borom Daarul Moxti ndax Serigne Abbas moo toogoon jataayub borom Daarul Moxti ñu taxawal takku defar daarul moxti la ñu njëkk a def ci euh, la maanaam bi biñ séddaleen ndimbal yooyu ba noppi ñu daje ñu ñu dajale loo xam ne ni li njëkk a def mooy def li ñuy wax reboisement maanaam jëmbat ay garab muy lu am solo nag ndax borom daaru moxti amoon na amoon na ab tokkoor borom daaru moxti amoon na jardin public bu mu defoon ci daaru moxti nga xam ne bu toogee moom génn kilifa nee na ma bu toogaan moom ci pénc mi day jàkkaarloog eh, garab yooyu noonu nga xam ne loolu lu ko yitteeloon la ci luy luy defar ab dëkk la takku defar daaru muxti bu ngeen demee ci jumaa ji ak ci bayti koko yooyu ngeen gis ñu jëmbat ko foofu takku defar daarul muxti moo ko fa jëmbatoon ginnaaw bi tamit weer wu dee wu nekk ñu génn ci kees gi ñi nga xam ne ay néew di maanaam duma ko waxee noonu sax waaye ñi nga xam ne xëy na mënuñoo xëccal seen bopp ndox ba mu agsi ci ñoom xëy na dana leen sori wala seen kàttan du ca àgg takku defar daaru moxti fexe ba xëccal ndox ba mu àgg si sa kër loolu tamit takku defar daaru moxti weer wu dee wu nekk da ko doon def ginnaaw bi nag lañu am ndigal ñu xalaat ne waaw daarul moxti lan lan gën a yittewoo ci jamono ji ñu ne ah daarul moxti de bañ seetee seet hôpitalu daarul moxti ni mu yaatoo ak ni mu rëyee ak daarul moxti li ci aju district bu yaatu la ba Mbàkke Kajoor loolu lépp ci daarul ci daarul moxti mooy seen ci la ñu ñëw maanaam moo moo maanaam ci hôpitalu Daaru Muxti la aju laa bëgg wax léegi nag ci lañ ne hôpitalu Daaru Muxti de amul am maternité maanaam fu soxna yi di suturloo amu fa maanaam bu méngoog jamono amu fa maanaam bi fa amoon wut ak jamono wax dëgg si yàlla dëkk bu toll ni Daarul Muxti war naa weesu muy am maternité bu mel noonu ndax maternité ba daal doyoon na kiimaan ci lañ ne nag kon nañu waxtaan ak médecin chef bi ñu waxtaan ak moom tamit moom it mu wax leen ko ne leen li gën a nekk daal li gën a jàmp fi mu toll nii mooy am maternité bu baax moom amul ci hôpitalu Daarul Moxti ñu ne nag kon nan ko engagé ñu engagé ko bi ñu defee li ko war a liggéey lépp matoon na 62 millions ak li koy maanaam li koy liggéey ak li koy matériel bi ciy dem yépp léegi nag takku defar Daarul Moxti jaayante tàmbali ko ba yàlla def 15 août. deux mille vingt mille vingt vingt et un bi ci lañ tegoon xeer wi wala quatorze août ci lañ tegoon xeer wi ñun waa Touba gi hmm? quatorze août ci lañ tegoon xeer wi ñun waa Touba gi def délégation ànd ak soxna Ami Mbacke mais ak soxna Mariama Ndiaye ñoo ngi koy ziar bu baax a baax moom sëñ Abdou Samad ak soxna maam Daba Bousso kilifa yu baax yëpp ñu ànd def délégation. ak seex Ibrahima Mbacke mii ñu def délégation bu yaatu dem fekkee ji tegu xeer wa tegu xeer woowu la 14 août la woon maanaam weer wii ñu nekk nii bi mu àggee ci fukki fan ak ñeent ci lañ demoon jóge fii dem Daarul Muti ñu teg xeeru maternité boobu mu toll ci juróom benn fukki million ak ñaar war koo defar war a def matériel bi ciy dem yàlla def maternité boobu noonu àgg na tey jii bañ war koo daloo bañ dem ci sëriñ Basiiru Mbàkke Anta laaj ko ci ndigal yañ ko ci waral laaj yépp ba mu joxe ci ndigal ya yàlla daa def fan yële ma dem fi Daaru Muxti tasanteeg sëñ Abdou Samad Mbàkke ànd ak njaboot gi ak ñi yoroon liggéey bi ñuy ñu dem di ko di ko saytu di ko xool liggéey bi noppi ne macha allah kon nag dem euh, daloo ji ko rek moo de des li bokk na ci li ñu wax sëñ Basiiru Anta mooy dañ koo bëgg a tuddee soxna Faati Isa Diop maternité soxna Faati Isa Diop bu ko defee ñépp dañoo dugg ci biir njabootug borom daaru gépp a ngi ci biir waaw biñ ko waxee sëriñ Basiiru Anta Ñang mu rafetlu ko lool te ñun nag loolu rek lañ bëgg mbégteem sëñ Basiiru Anta Ñang ndax tey moo fii borom daarul muxti yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko di wax ni ñoo ngi jégalu bu baax nag ak a tuub ndax ñun kat lii waruñ cee yées waruñ cee dellu gën féete ginnaaw tey dafa mel ni moom lañ def ndax carrière bii de bi ko borom daaru di toj di ko yóbbu ci jumaa ji sëñ Modou fay moo jiite woon carrière bi keroog ba bàyyi Serigne Touré di ma loué fii place dañ ko ko waxee muy du loué restaurant ñu wax ko ni ko man la damaa woo ba ma ñëw mu ni loo fi soxla defal ndax sa sa jur moo doon jiite tey jii carrière jumaay ji am na bis boo xam dañoo ñëw fekk xeeru mag nekk fi nee sëñ Modou daan xeer yi de bu ku déggoon la muy wax dinañ koy dinañ koy yóbbu ndax mi ngi jooy rek bëgg a ci jumaay sëñ Touba ji nee na ñu xeer di ko toj di ko des ba mu desum pax ñu dugg ca pax ma di ko tibb di yóbbu ca jumaa ji kon tey bu ñu wootee ab liggéey kenn waruñu caa man ñaareel ba sëriñ bi danaan def néeg yu am na néeg yoo xam ne waa fetto ñoo ko daan jóge fetto di ko liggéey dañ dañu ci daan tooñe sax ndax nañ sëñ Modou Awa Bal daan wax naan bu sëñ Modou fay fetto di ñëw dañuy wax Baye Sa Thiam mu yëgle dëkk bi ne am na gan guy jóge ca sawu bi di ñëw lu waay soxla na ko denc ndax ne dajaan def bu guddee mu yee dongoy ni um jóg leen ngeen gis kat xat bu rafet rek ngeen indi ko nee na booba li mu ci jublu woon daa bëggoon bu ëllëgee borom daaru musi di fay tabax ya leer naa nañ rafet lool waaye foog naa tey daaru tabax ya leer na nee na moom loolu la jubluwoon dongay di sàcc xat xat yi di indil sëñ bi ndax bëgg ku ci amub xat rek boo lëgee nga am ci état yi nee na moom loolu la ci jubluwoon waaye nit ñi di ko jàmbat di ko jàmbat ba ñëw wax ko sëñ mu daaw bàll muy def bu sëñ Modou Faye di ñëw mu daal di yónnee ci dëkk bi bàyyi saa caam yéene ni waaye bëgg na nga ko denc balaa sëñ bee ñëw noonu la daan def waa këramtam genn kër waa këram ku mas a am buntum néeg wala nga mas a am caabi gaal amut dañ daan wax ni euh, bu amaan am xar dañuy wat ci loos wi bu amee ginaar dañuy xus ndongi waaye danaan bàyyi ba jigéen ñi dem tool mu ni déngaam jàppaatal lépp rek bul ko xàmmee wala nga ji jéem a xam dara soo ñëwee boo ko ne maam maamoom ginaar gi wala maamoom xar bi mu ni déngaam bu sëñ bi fayee rek lépp ni gaañ te booba laaxum ngoñju lay lekk di yot soxna may am xar daaru ma naan di yóbbu ay cëggi ginaar daaru si ñun ci kër gi ñuy lokk laax boo xam ne nii dangay rocc caf na baxal ko sotti ci sunguf lekk laax bu amul suukar te booba loolu lay def kon loolu ku ci bokk ne boo wanee gin boo boo boo boo féetee ginnaaw sa gàcce la man de sama kersa la xam naa lu ma mën incha allah fas naa ko ci yéene def ndax amuñu lu daaru musi suñ demee ba ñuy tudd tey borom daaroo tax kon nag fas nañ yéene taxaw ànd ak yéen liggéey bi incha allah lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp. daaru gii nag lu ko waay lu ci waay def ñun nga ko defal kon ku si nekk di yëngu ñun mënuñu lu dul ñaanal la te yàlla musal nañ ci mépp te yàlla doolu leen a suturaal te li ngeen def ba am hôpital bu ngeen fa jot a tabax muy maternité boo xam ne nit ku mën na faa jariñoo kenn mënatut a am lu gën a kawe loola te it wax nga ko sa biir wax sadaxatul jaar yàlla lay doon li fekk mi ngi fi rek yiw wu ci waaye am yow yiw woo da leen fi fekk donte buñ fi jóge woon ba àdduna it loolu mën nañoo taxa a texe kon nag yéen ñi koy saytu di ko taxawal di sëñ moo Awa Balla Ndiaye sëñ waa ka sëñ Baba Ndiaye ak waa sëñ Modou Faye fett ñi ñooñ ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax jotaay yi nii dajeeg yéen wax dëgg yàlla jotaay yu nu gërëm leen kon sëñ Ibrahima ñu ngi lay seere loolu bu baax a baax a nag yàlla na yàlla doole dimbali soxna yéen ak yéen ñëpp lii ngeen càmbali da ngeen ci way ndaxte bu fekkee weer wu dee ngeen def ko rek loolu mooy am mooy mooy tax mu am jariñ te wax dëgg yàlla yomb na lool te it bu dajee dina jariñ lu bëree bëree bari donte buy génn day mel lu néew waaye bu mbooloo mi dajalee rek lu liñ ci mën a def day bari lool lool lool lool ndaxte nit daana wopp ba uh, wéradi ba faatu te fekk ne la ko war a faj moo bari na lool waaye kenn da ko dul mën a wax ne mën na maa fopp ne engagement faj ko waaye bu ko nekk joxee téeméer téeméer yooyu bu baree ba dajaloo mën na koo faji ba mu delluwaat ci wér-gu-yaramam te bu nosuwut tënkuwun mën naa faatu te duñ ko xam loolu waaye nag comme que ñi ngi dajal ñi di dajale suñu wërsëg rek képp koo xam ne si wopp nga mën nga euh, te war a dem hôpital faju fa loolu moom ndimbal la ci ñun ñi ndimbal la ci ñi nga xam ne ñu koy def kon nag soxna yi fi xam ne ñu ngi fi dajeek ñoom soxna Faati Mbàkke moom suñu Moodu Muxtaar yi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak mboole kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci teew ci jotaay bi te woon xel seen tur waaye nag jotaay bi ngeen teew moom ngeen war a teew yàlla na yàlla doole dimbali suturaal leen bu baax a baax baax kon nag yàlla na yàlla ci boppam